mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak euh, Pape Mahawa Diouf ngeen ko nekk xam na ko ci wàllu politique ci wàllu APR euh, du ne guléet sax mu ñëw fii ci rajo bi nga xam ne moo di bu groupe Sud Communication jamono bi ñuy waxee ci Sénégal gi yëpp wërngal kàpp fàttali itam bokk ñu ñuy déglu ne euh, émission bi mi ngi jàll ci synchronisation bi ci 14 région yi nga xam ne ñu ñoo tënk biir Sénégal muy émission phare bi ñu duppee jano bi fii ci Sud FM di fi dalal Pape Mahawa Diouf wàllu tourisme itam am loo xam ne jot nañ koo ko ci dénk loolu daan ci dikk léegi euh, Pape Mahawa ñu ngi lay nuyu. jërëjëf euh, El Hadj Maodo ñu ngi lay fay di di la delloo nuyo bi di nuyu waa Sud FM yëpp waa groupe bi yëpp. tubarkàlla di nuyu tamit ñi nga xam ne mooy seeni auditeur Sud FM mm-hmm. ak internet yi nga xam ne ñu ngi leen di déglu euh, fépp ci àddina bi di leen chaat leen ñaanal jàmm ak tawféex voilà Pape Mao réew mi toll c'est ça c'est une ah, waaw réew mi dey am na jàmm fay ñu di ci sant yàlla njëkk mm-hmm. ndax euh, lu dul jàmm du dara mm-hmm. te Sénégal riches bi mu am àddina yépp nay ko ko mooy jàmm bi mu am ci biir am ko ci jëflanteem ak ñi ci biti te ku xool dëkk yi nga xam ne moo ñu wër sa xel war a xam ne li ñu am ci riches ci may fa yàlla bi ñu war a gën a jàpp mooy sunu jàmm bi nga xam ne am nañ ko ci réew mi donc réew mi am na jàmm réew mi mi ngi ci yoon ñu teg ko ci loxo yu wóor àddina jaxasoo ndax mbas mi fi jaar teg ci crise internationale bi fi jaar terewul Sénégal tegu ci yoonu développement mm-hmm. euh, ci yoonu naataange mm-hmm. ci yoonu yokkute mm-hmm. grâce au plan Sénégal émergent boobu nga xam ne mi ngi dox critères yi nga xam ne moom lañuy ñuy observer pour xool doxinam toirkal la ñëpp satisfaire nañu ci li nga xam ne mooy la voie de développement bi ñu jël ci wàllu infrastructure ci wàllu politique macroéconomique ci wàllu enseignement supérieur ci wàllu processus d'industrialisation donc ñu njotu déwén am gulet ci histoire wu taarixu Sénégal euh, yokkute koom-koomu réew mi dina toll foo xam ne ci liñ koy nattee muy taux de croissance musu faa yegg muy taux de croissance à deux chiffres. muy est-ce que loolu c'est pas parce que gars yi nee ñëw li wax ni est ñoo ko tey la croissance alors que le pays aujourd'hui yow xam nga ni mu doxee yaa ngi ci mbedd mi yaa ngi gis nit ñi est-ce que nekkul lu paradoxal un tout petit peu wala wala techniquement nan ngeen mën expliquer chiffres yi ngeen di wax nii parce que boo xool nii day mel ne sénégalais lambda bi dafa naan mais bay ñii dañuy nelaw wala dañuy génn. est-ce que nekku leen au déedéet xam nga euh, ndar moom xëyul sotti. kenn waxul ne dëkk bi amatul jafe-jafe kenn waxul ne euh, euh, dund gi ci euh, période crise mondiale bi ñuy dund amul ay difficulté loolu kenn waxu ko kenn xalaatu ko wax sax waaye am réew soo koy tabax doo ko tabax ci ñaari at juróomi at danga koy tabax ci juróom fukki at ak même si xalaat projection def liggéey boo xam ne soo fi jógee ñeneen ñi ñëw tamit dinañ ko mën a yeggali sur cent ans yoon boobu lañ wax ne yoon bu dëgër la te xool nag ci fukki at yi weesu jéego yi Sénégal def jéego yi mu def ci wàllu infrastructure ci politique de formation ci accompagnement de la microéconomie la DER yi ñu ci def sur le développement de l'infrastructure rurale PUDC sur le sociale guléet guléet ci nguru mag Macky Sall gouvernement jël loxoom di ko dugal ci njaboot gi directement tey xool rek la nga xam ne mooy doon koom-koom bu ñuy dugal ci njaboot bourse de sécurité familiale yi loolu lay dox wàññ bi nga xam ne wàññi nañ ko njëg yi ci fukki at daanaka yënguwul ba crise mondiale bi benn prix ci li nga xam ne mooy njëgu diwlin njëgu ceeb njëgu gaz yokkuwul lii fi am nag ci at bi ñu mujj crise internationale la nga xam ne ger ba am Ukraine moo touché lépp li nga xam ne mooy transport ak chaîne de valeur logistique mondiale ba tax njëg yooyu ñu conteniroon ñu yokk gis ngeen jéego yi ci état bi def encore pour que mu woyof ci njaboot. mais ça a posé un problème attention wàññi wàññi njëg yi tamit bon. c'est vrai que am na yenn parties yu wàññi. après le service contrôle oui. après nañ dugg ci wàññi bi waaye danga ma laaj question bu am solo fu réew mi tolloo mhm. donc ñaari tànk yooyu ci jàmm ci politique d'infrastructure. Mhm. ak ci yërëm njaboot roof ko loxo. réew mi ñu ngi ko teg ci loxo yu wóor yu am yërmande ci njaboot am yéene ci développement réew mi foofu la réew mi toll. d'accord waaw Pape Mahawa xam nga danga tudd léegi euh, wàññi bi ñu bari yaakaar ko c'est vrai que am na lu wàññee ko mun ñu ko weddi parce que am na service contrôle am na nu verbaliser jàpp leen et tout mais jusque là les commerçants il y a des réticences cest que à la limite doo doo ko sentir trop trop trop quoi mais ou se trouve le problème est-ce que mënuñu woon. le gouvernement continue subvention ci port bi am na commerçant yi wax ne gouvernement bi li muy def nii naan wàññi naa lii wàññi naa lii jaru ko lii dugg lépp na ko subventionné rek bu dee mi ngi doon subventionné après léegi résultat bi day wàññeeku wala nga teggi taxes yi c'est c'est très simple parce que le pays vi ci ay taxes la ngeen di dund. <laughs> waaw waaw loolu yëpp ay xel la. waaye waaye c'est pas très simple. ndax su simple rek sotti. waaye. Mhm. li am solo mooy li ci état farlu taxaw ci. Mhm. dajale acteurs yi. ne du ñu bàyyi noonu ndax li ñuy def fii amul benn réew bu ñu wër ci domaine de CEDEAO bi ñu nekk bu koy def. ah amul. amul réew bu ko jël initiative dafa di ci président Macky Sall ak gis-gisam. Mhm. njaboot la yërëm. politikam am yëpp daf ko orienté ci nan la dund gi di woyofe ci njaboot. ak nan la ñuy fexee ba ñu dëkk ci réewu taax ak ñi dëkk ci réewu. Euh, ci dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yeeg gox goxaan yi suñu dëkk ba fële suñu mbokku ndàngal ma yeeg ñoom seen bool bool yi mbokk bool bool yi ak siin siin yeeg yooyu mm-hmm. euh, ñooñu ñu boole ci développement bi loolu mooy équité territoriale ak équité sociale bi muy dox ba tax na moom fu crise amee mu créer des mécanisme de solidarité pour jàppale njaboot gi nga xam ne surtout ñu ci gën a néew doole léegi nag ah politique yu demee nii dafa bëri ay facteurs soo xoolee lu demee ni port bi mm-hmm. amoon na benn benn benn benn difficulté mooy congestionnement bi newoon ci port bi. Mhm. nga xam ne bëri woon na ay bateau denrée yu ñëw ba ci port bi duñ ma nekk si loolu regle nañ ko bokk na ci li nga xam ne mooy li ñu réglé assez ba nga xam ne facilité na euh, le coût bi nga xam ne mooy le coût de transport euh, te doon am coût ci port bi. leneen li aussi mooy yi nga xam ne mooy zone par zone en fonction des réalité ñu dugal ci toute la chaîne de valeur les importateurs les acteurs détaillants de sorte que njëg yi ñu mun ko mettre au juste prix ba pare nag état farlu ci takk ci ndiggam def ay contrôle sur le terrain pour que ku nekk rek bu mu jóg def prix bu ko neex ndax spéculation aussi amoon na ndax bëri woon na produit yoo xam ne fii ci réew mi lañ koy defaree amul benn ku mais ku nekk rek toog sa sa sa buntu boutique def prix bu la neex loolu bokkul ci liy yërëm jaboot or damay fàttali ne Yërim Jaboot mhm. mooy fil conducteur u action président de la République infrastructure développement infrastructure rural ak yërëm Jaboot loolu mooy li nga xam ne mooy politique en général d'accord euh, ci loolu pam Mao euh, wax bi may tàmbali dama wax la fu réew mi toll fu réew mi toll dafa am loo xam li moo koy moo koy moo koy moo koy ci lay sukkandiku te dégg nañ amadu Ba foofu la ñuy duggee sax ci wàllu politique bi dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. Amadou Ba bi ñu ko sampee ak léegi yàggul mu nekk tamit premier ministre fii ci biir Sénégal. Mm-hmm. def déclaration de politique générale DPG bi mu def ko bërki démb. Mm-hmm. jàkkaarloo ak député yi. am na ay priorité li mu wax am na gars yi ñu ne tàngal ceeb la. il n'a rien am na ñu ne dafa def dafa répété waat li nga xam ne mooy vision seen xalaat. est-ce que est-ce que yéen nag seen vision moo doon deux mille trente cinq. Mhm. mais Sénégal yi fi ñu toll nii est-ce que nag jàmpul parce que ñenn ñi tamit nee nañ slogan yi bari nañ euh, accélérer la cadence am na ko ko fi waxoon tey jii yéen a ngi wax gouvernement de combat mais ces slogans là mais du dugg leen ci liggéey bi mu jeex c'est mieux. ah liggéey bi moom li président doon naan làmb daj. Mhm. bañ nañ ko ba ci wàllu bilan loolu dina doon combat boo xam ne. on appelle d'ailleurs tous les acteurs de la majorité à relever ce défi parce que nit ñi bëgguñu wax ci bilan. ah bon ku wax bilan ñu ne la waxu bilan jotagul ndax bilan nag kenn du ko discuter le président Macky Sall. personne ne peut contester li nga xam ne mooy les résultats concrets yi mu am ci koom-koomu réew mi d'abord sur les infrastructures le plan Sénégal émergent plusieurs étapes là avec des PAP des plans d'action prioritaires sur trois ans plan d'action prioritaire yooyu dañ ko ajuster ci biir Covid bi ajuster ko accélérer ko sur des domaines précis l'emploi des jeunes les infrastructures et le financement de l'économie notamment l'économie solidaire dafa dox parce que Sénégal soo xoolee malgré crise bi malgré li toog ñaari at mbas mi nërmel économie mondiale Sénégal état bi dafa jël des mesures de financement euh, de cette euh, de la résilience dans cette crise-là avec deux phases à l'époque une phase de résistance et une phase de résilience et une phase de relance phase de résistance ak relance bi dafa permettre ñu financer des secteurs comme le secteur du tourisme par exemple nga xam ne près de quinze milliards lañ jël ci crédit hôtelier injecté ko jël ay mesures fiscales empêcher les licenciements dans certaines entreprises financer le chômage technique c'est-à-dire que ingénierie de cette politique d'intervention économique la ni ko président Macky Sall dirigé ci biir Covid bi dafa am une efficacité remarquable près de huit pour cent du PIB national mille milliards lañ jël injecté ko dans l'économie pour maintenir l'emploi et préserver des secteurs comme le secteur du tourisme Alaaji Maodo soo demee dëkk yu mel ni Canada li ñuy doon ay pays développés bëri na fa ay hôtel yoo xam ne soo fa duggee tey amatul personnel dañ lay tegal caabi ji ci bunt bi nga dugg ak poussière baag lépp ci biir hôtel bi ndax ndax amatul nit parce que lii politique ku Sénégal def pour maintenir l'emploi maintenir la survie du secteur am na réew yu ko deful mais am attention ci koy attention ma maawo pap maawo ci ci covid bi am na ay hôtel yoo xam ne pratiquement dañ dàq seen employé yi te ko chômage ah, technique bi terewul terewul jafe-jafe am na waxuma ne jafe-jafe amul suñu réew am na ay ay ay ay je veux dire génnul mais globalement globalement le secteur est debout le secteur est capable de continuer encore aujourd'hui à recevoir jëli ay nit ay touristes yuy ñëw. seen ak seen réceptif yi di dox. ak professionnels yi joxe sax ay service tourisme yaa xam safari la wala yeneen produits c'est parce que dañ leen a loolu bëri na yeneen secteur yi nga xam ne ils étaient touchés yoo xam ne les autorités de l'État dañ ci intervenir. voilà pourquoi plan Sénégal émergent li mu jot a def en politique d'infrastructure mais Dakar. est un chantier à ciel ouvert la vérité mooy président de la république dafa bëgg soppi xar kanamu sunu capital def ko capital moderne train express régional déggatoo ku ko tudd déggatoo ku ne amul njëriñ de loolu dootoo ko mës a dégg ndax dafa soppi xar kanamu réew mi soppi li nga xam ne mooy quotidien wu sénégalais yi yi koy utiliser bët bu set BRT bi bés bu paree naka noonu xar kanamu ndakaaru lay soppi président ak njiit sooy jiite réew da ngay jiite ñi nga xam ne ñoo fi ne tey mais da ngay liggéeyal ñi nga xam ne ñoo fi ne ëllëg ba tax na doo topp wax ju bëri ji doo topp saagakat yi doo topp waxkatu lu ñaaw yi li ngay topp mooy liy njëriñu réew mi loolu nag ku laaj ñu mën a julli ji tisbaar wala juma ajjuma Tuubaa ñëwaat ñooñu xam nañ njëriñu action président de la république. d' accord mais nag nga xam ne. Mhm. ñooy jëfandikoo piste rurale yi ñuy def ci réew mi ak pont yi nga xam ne ñooy relier Sénégal mu doon benn pont Rosso ba ñuy tabax pont Foundiougne bi pare. Mhm. pont Gambie bi nga xam ne yombal na dem Casamance ak dikk kenn coowatu ko. ñi koy dund xam nañ lool li ci des yàq la ak defar ñun politiku defar lañ nekk plan Sénégal émergent vision bi c'est deux mille trente cinq Amadou Ba wax na dëgg. il faut le réajuster à de la situation actuelle defaat beneen plan d'action prioritaire bu ñuy permettre ci situation relance post-crise bi ñu mun a am les meilleurs outils pour atteindre l'objectif du Sénégal euh, émergent en 2035 et c'est en bonne voie loolu nag du sénégalais yi rek koy wax ñi koy wax mooy waa CEDEAO ñi koy wax mooy waa UEMOA di xool réewu Sénégal ni muy ni muy amee jéego ci yeneen réew yi mu dendal résultat yi muy am tout les tous les observateurs ak institution internationale yiy càmbar développement ñëpp a saluer lavancé fulgurante du Sénégal bi nga xamee ne président Macky Sall mi ngi ci réew mi ba léegi. loolu nag loolu nag moo tax. Mhm. li nga xam ne Amadou Ba euh, def na ko ci DPG bi munuñ lu dul saluer ko encourager ko et féliciter ko également pour ni mu présenter li nga xam ne mooy projet de développement. d'accord yi mu jiitee voilà est-ce que Pape Mahawa li nga wax léegi nii ak itam li perspective yi nga wax ak li ngeen def nii ci wàllu xaalis beeg euh, euh, déclaration de politique générale bi nga xam ne Amadou Ba def na ko ay tuutu tu tuutu est-ce que loolu parallèlement mën na ànd ak corruption bi nga xam ne mu ngi gangrené ba corps de contrôle yi lu mel ne cour de comptes su ma juumul loi bi loi numéro 2012 23 du 27 décembre 2012 la woon moom moo créé woon. cour des comptes c' est vrai bu la neex sax nga ne ci ay Macky Sall lañ ko amale parce que bëgg lu leer bon d' accord loolu xam naa ne foofu ngeen ñëpp vous êtes politique mais cour des comptes li mu wax nii ci Covid bi loolu dama dégg boobu à 48 waroon na am lu yëngatu ñu téye ñenn ñi mais contre mais mais c' est terrible bu fekkente ne li cour des comptes wax te ma lire ko ci rapport bi man rapport bi ma gis boog man bi ma jotee lire bu dee loolu la demee lu président Macky Sall di xaar. ah d'abord euh, li nga wax yëpp euh, dëgg la mooy ci fiñ ko créé. instrument yi ngay wax yëpp. oui c'est en c'est le président Macky Sall moo ko créé. moo créé OFNAC moo créé. Cour des comptes et alors li ma jàpp man au-delà du fait moom ñawtee fu moom rek dañ mënuñ dul dénoncer ko. baaxul waaw lu ñëpp bokk ku ko ak i moo rafet. Mm-hmm. li nga xam ne moom la charte yi teg. nit ñi war ko respecté ku ko respecté wul defoo li yoon. c'est clair loolu c'est une généralité. boo xam ne ñun ñëpp mun nañ ci d'accord. sur tous les secteurs yi. léegi nag secteurs yëpp waaw ci dans tous les léegi nag li ci des mooy euh, ñu ne euh, lan la président Macky Sall di xam mais est-ce que président Macky Sall moom il ne décide pas seul. moom rek moo am sañ-sañu euh, voilà ne lii et cetera man li ma jàpp. man nga na déclencher affaire yi. li ma jàpp. Hmm? li ma jàpp. mooy ces questions la dafa doon ay questions yu transversales li wóor mooy l'exigence de transparence bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko mhm. on va y arriver ensemble ñu ngi progressé y a beaucoup de choses euh, yoo xam ne on l'a franchi Euh, se rapports son publics journalistes yi di ci jot. di ko wax daawul demee noonu. Mhm. Euh, il y également des instruments yoo xam ne comme l'OFNAC ak yot yo IGE ñu ngi def seen liggéey. Mhm. Euh, dinañ dox ba yegg foo xam ne les politiques de transparence et de bonne gouvernance vont progresser également dans le pays ils ont progressé déjà sous le régime du président Sall mais dinañ gën progressé parce que nag rapport moom comme rapport au Cour des comptes bu ne institution bi ni mu géré baaxul. bu ne programme bi ni ñu ko gérer baaxul mais loolu mooy le propre de tous les pays démocratiques hein te am fépp parce que leur rôle justement c'est le contrôle c'est pas c'est pas une raison hein. non waxu je justifie pas wax naa li wax ba pare mais dama ne loolu mooy mandargal sax ne suñu démocratie démocratie bu wóor la ndax ni muy amee suñu réew noonu lay amee aux États-Unis noonu lay amee en Allemagne dans tous les pays yi nga xam ne euh, am nañ ay instruments yu leen di permettre maintenant nag le traitement xam nga j'ai eu une expérience bu ma marqué c'est mon passage au euh, avec sous avec mon frère euh, et grand frère euh, Latif Coulibaly Coulibaly de la promotion de la bonne gouvernance mm politique de corruption ak politique de lutte contre la corruption dafa complexe ah bon ah oui parce que guerre fan la commencé ak fan la jeexe Alaaji Maodo ak ñan ñooy guerre kan mooy guerre kan dafa laaj changement boo xam ne du changement ci état ak politique rek c'est une culture boo xam ne fépp la nekk euh, kilifa diine yi kilifa aada yi euh, tous les corps politiques les corps euh, du journalisme les corps de la justice c'est transversal et c'est culturel li ma xam mooy à l'époque les politiques de transformation engagées aux côtés du ministre Abdou Latif Coulibaly sur orientation du président de la République pour transformer la culture du pays en matière de corruption on a fait face à d'énormes difficultés. Ah bon? Ah oui, mais ce pays résiste. Ah, a pas la, la corruption ne peut pas être l'affaire euh, d'une partie d'une population. Oui, et d'une personne. Et d'une personne. Corruption, c'est une culture et c'est des programmes en général multigénérationnels qui finissent par transformer les cultures et cetera donc bu ñu trop aussi on fait des pas et des pas ont été franchis créer l'OFNAC c'est un pas créer et laisser les cours de compte IGE sortir leur rapport que ce soit public et que la presse nga xam ne moom mooy suñu doole aussi ci suñu démocratie jël loolu rendre ko visible mu transparent c'est déjà quelque chose amal tax c'est quelque chose gestionnaire public bu nekk tey sooy liggéey amul poursuite peut-être on dit que poursuite et ça mais déjà la clameur médiatique rek qu'on dise que yow na nga baaxul say mbokk di ko dégg mais c'est une pression sociale et c'est un instrument qui pousse à changer les comportements nous avançons ñi ngi avancer ñi ngi avancer bu ñu jël lépp tour ko bu ñu jël lépp tamit xëpp ko xëpp ko les hommes politiques en disant que la corruption c'est là-bas que ce serait un raccourci mbir mi demeewul noonu. d'accord yow pour c'est beaucoup plus compliqué que ça. mais foofu la problème bi nekk nag parce que ñoo xam ne dimbali la marche de la lutte contre la corruption parce que dañuy bëgg a utiliser certains éléments parfois d'ailleurs à tort parfois li ñuy wax loo rapport bi ak c'est fini on t'accuse de tous les maux et parfois ben xam nga léegi da wax lu am mais d'accord li nga wax nii dafa am solo trop nit ñi koy ñu ngi ko ñuy déglu ci rajo yi mbokk yi ma fàttali na ba léegi ñu ngi ci jano bi di dalal kii di Pape Mahawa Diouf xam nga soo déggee ñu wax la ne la ne la président de la République moom lu muy xaar bi rapport yi génnee ba léegi li ma ci jàngat mooy dafa amoon ay jamono ñëwoon na mun a am na dossier yoo xam ne maa ci dëgg sama loxo waaw mais loolu mais loolu loolu kay c'est un paradoxe bu fekkente ne moom mooy mooy buur mooy bu muy mais na déclenché na génne dossier yi dépoussiéré ko ñu jaxas koo affaire yi jaxasu non dafa mel ni bi mu ne il faut réduire l'opposition à sa plus simple expression il l'a fait il l'a dit il l'a fait en il a essayé na dolli ah En démocratie kay les républicains essaient de limiter les démocrates à leur plus simple infraction et, les, <laughs> et le, retour euh, la. pour yow c'est de bonne guerre. mais c'est de bonne guerre ils essaient de réduire le pouvoir à sa plus simple expression loolu la ñuy jëm bët bu set. <laughs> loolu dara luñ ci interpréter. pour yow pour yow c'est comme ça c'est la politique man mii ci loolu lay liggéey. réduire l'opposition à sa plus simple expression bët bu set mais ça c'est la règle. ah bon di ñor du question ñoo di di dugal c'est les règles du jeu démocratique wane ni ñi ñu jàkkaar lool amuñ projet amuñ gis-gis amuñu kattan pour jiite réew mi amuñu benn yéene bu rafet ci réew mi mais loolu mooy jëflante bi ñu nekk en démocratie wax loolu dara ñaaw ci léegi nag pour ñëwaat ci li nga doon wax li muy expliquer foofu mooy njiitu réew mhm. sa décision mhm. li muy impliqué dafa bëri liñ la sant njëkk xëj na li ci ëpp essentiellement mhm. mooy garantir la sécurité nos frontières l'intégrité territoriale et la paix civile dans le pays loolu li koy régler yaa ko xam yow mi ñuy jiital mhm. li muy expliquer moom ci loolu mooy am na ay choix yoo xam ne suñ ko nee moom moo ko war a def c'est pas pour rien pourquoi waxuñ ministre de l'intérieur mu déposer ko pourquoi waxuñ ministère de l'économie mu déposer ko la justice moom lañ ko sant c'est parce que ces rapport la am nañ des enjeux yoo xam ne suffisamment importants qui appellent à ce que kiy décider loolu doon ci nga xam ne mooy le dirigeant suprême du pays. muy le mais rapport yëpp ci moom la jëm. déedéet léegi nag léegi nag loolu. Mhm. moom nañ ko bàyyee àtte boobu. parce que moom aussi liñ ko dénk ëpp na ab rapport réew mi lañ ko dénk. réew mi lañ ko dénk d'accord mais en tout cas ba léegi nii euh, am na ñoon épinglé àll nee na seen ndaw est-ce que gis nga ci gouvernement président Macky Sall ba mu faloo ba léegi 2012 ba suñu jëm ba suñu jëm yàlla tey jii. kenn ku bokk ci lànkam koo xam ne kii épinglé nañ la dugal ci kaso bi. bon personne démb dama doon laaj sama benn xaritu juriste. waaw personne waaw. ma doon ko laaj ma doon ko laaj mu dimbali ma. Mhm. ci définition. Mhm. lan mooy épinglé. Mhm. parce que man xamaguma li journaliste di bind épinglé ma ne ko juridiquement mooy lan. ama d'ailleurs su amee ku ma ko mun a expliquer. man je suis preneur. bon mais euh, li nga bëgg a wax euh, mooy sur des questions de gestion. ndax am na kuñ ci. ku ku bokk ci nguuru Macky Sall rek kun ma sa jàpp. waaw man de dégguma ko waaw. waaw lu tax loolu xanaa ñoom ñeent ñëpp a jub kon yéen ñëpp a jub. ah alors que on. te te saxaar gaa ngi dem di épingler rek. yow danga gis ku ñu war a. Ah, woo justice wala te tawawuñ ko. en tout cas liir naa. gisuma mais liir naa. waaw loo xam ne bu ñu ko toppee am na war a ñu justice war a woo. xaw ma nag. te mooy ah. mooy mooy les rapports. <laughs> des cours de compte. waaw bon je sais pas maintenant bon je sais pas maintenant est-ce que. man dégg naa ñu bëri ñu tooñ. ñoo xam ne tudd nañ leen sur des rapports précédents te bi ñu xoolee mbir mi bu baax c'était pas vraiment la vérité en vérité malheureusement OFNAC am na ñu ko jot a diriger ñoo xam ne c'est des politiciens. yoo xoo ah. waay waay. waaw dafa nag yéen a tas boobu nag yéen a ko ah, dàq rek ah, dafa nag rek. ñenn ñi nëbbatuwuñu ñenn ñi am na sax ay fonctionnaires yu jógee OFNAC jël parole publique bët bu set di dal ci kaw président de la république 24 heures. alors que ñu ngi woon OFNAC. alors que ñu ngi woon OFNAC loolu bëri na Mody Niang. moo tudd ko xam naa moo di ah, il prend euh, la parole publique régulièrement bon c'est la démocratie ah ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga xalaat mais vu ni muy attaque régime bi ak ni muy dalee ci régime bi sur tous les plans pour quelqu'un qui était un fonctionnaire bu nekkoon OFNAC nag peut pour faire poser des questions. Ah, mais bu dee OFNAC bu leen joxee rapport ngeen dëgg ci kon lu muy jëriñati. déedéet damay expliquer ne rek. oui parfois organe de contrôle yow da ngaa jàpp ne parfois y a des politiques dedans en tout cas exemple nag mun nañ ko joxe quoi mun naa joxe exemple bi euh, assumer ko parce que aussi ki koy def nëbbatuwul il le fait publiquement loolu mun nañ ko wax mais est-ce que... parce que parce que parce que au fond pour oui. ne pas entrer dans dugg ci ay particularisme bien sûr bien sûr restons sur li ma wax sànq rek liy soppi mbiru corruption c'est des comportements généralisés du rek des politiques du rek et cetera il faut que ñu xool globalement comment mettre pour, en pour yow il y a aspect culturel euh, bien sûr expérience bi ma dund mhm. ci ci ci ci bonne gouvernance mhm. moo moo tax ma mun a ma mun a mun a wax loolu parce que foofu gisoon léegi da nga ne pays résiste man France ah y i eu mais, mais, mais ah oui, eu des résistances énormes sur les questions de de politique de bonne gouvernance ah oui oui oui y a eu des résistances des entraves yu ngeen mënta euh, oui des politiques de résistance où le pays euh, euh, euh, sur certains de ces leviers dañuy jóg taxaw ne yoon bi ñun c'est pas parce que noonu la changement yi daal étape par étape la ñëw. Mhm. du doon des politiques de rupture où en fait euh, on choque le pays sur certaines choses loolu mënul demee noonu et les et les politiciens. Mhm. Euh, encagoulés qui veulent aller dans ce sens ñoom ñoo la ko gën a xam. d'accord tout, tout ce qui prie crie ici à des histoires de de corruption ne sont pas irréprochables on l'a vu à chaque fois que. Euh, d'accord di avancé euh, d'accord ba léegi ñu ngi ci wàllu politique ñu ngi ci wàllu réew mi ni muy doxee wax nga léegi bi ngay tàmbali na réew mi mi ngi ci jàmm est-ce que gisuloo ne réew mi pour mu dal nekk ci jàmm dañ justice bi war a def liggéeyam ak à tête reposée kenn du leen sonal ci dara amul pression le cas bon waaw du ma tudd ay nut ay tur waaye cas yi fi wax ak yu demee noonu am na ay doomu sëriñ yu génnee ay vidéo wax fii bon loolu sax man jàpp naa ne dañ ci jaar ak yàlla parce que pour man ñëpp xam nañ ay y a énormément de détails dedans à la limite dem ba Sénégal dañu fatigué ci affaire boobu mënuñu ñu loo gisee en tant que politique ñu évacuer dossier boobu ku nekk dem quoi affaire bi jeex quoi comme ne ngeen dañoo bëgg a liggéey réew mi. mais ban ban dossier ban dossier ngay wax tudd ko ñu xam. mais dossier Adji Sarr Sonko a ah man de duma ci wax. lu tax. mais parce que dama ci xamul dara. mais am nga ci sa droit nag loolu moom nangul naa la ko. xamu ci xamu ci dara c'est-à-dire El xamoo ci dara. man xamu ci xaw ma ci dara. sëriñ bi ñas bi nga doon tudd sànq xamu ci tous. ah xam na ci dara kay. loolu ci xam. ah il a il a parlé li may wax kay man li may wax maag yow mun nañ ci d'accord ak ñëpp. la xew foofu ci diggante ñaar ñoom. ah d'accord yow ti parles de. kenn xamu ko te wax ji loolu la. on parle de complot. non déedéet loolu buñ ko wax. y a pas de baaxul te jàpp naa ne suñu buggee fulal fay dal suñu démocratie lu nekk nañ ko teg place am man waxuma kii moo def kële moo def loolu yëpp dugguma ci ndax loo xam ne la du waxu politique du woon réunion politique pour yow c'est personnel c'est privé mais bàyyi ma ne du woon réunion politique kenn takku ko yeew ko yóbbu ko fa nit moo jógal boppam dem fa te attention ah, waxuma ne lu ñaaw la ah. man dugguma ci loolu Mhm. ma nekkuma ci jugement moral dugguma ci mhm. parce que fii ku nekk yaag sa bopp ku wéet sa bopp absolument mais aussi nañ jox cër suñu démocratie nañ jox cër kilifa yi nga xam ne ñoo tabax réew mi ñi ñuy ah. wax li ñuy wax mooy jiite réew mi mooy dugg ci taarixu Sénégal comme Léopold Senghor comme Cheikh Anta Diop comme Mamadou jaa comme Abdou juuf comme Abdoulaye Wade comme Macky sàll soo buggee dugg ci trajectoire boobu mais am na wax yoo xam ne warul doon wax yoo xam ne mooy doon centre débat Sénégal mais loo bëgg ñu wax la ci loolu man sama bopp. ban pour yow pour yow daf ñuy tardé. mais mais mais loo bëgg mu wax la ci loolu. Alaaji Maodo non c'est juste ton point de vue mais c'est pas grave. non mais Alaaji Maodo man ak yow yëpp lan lañ mën a wax ci loolu lu am fula lu fulal. mais y a une évolution ah y a y a y a l'évolution des choses ah. dama jàpp ne y a une des arrestations. su amee complot. Mm-hmm. su amee complot. complot bi fi mu féete. Mm-hmm. mooy ki jël li nga xam ne yëfu privé la. suñu yoon nekku ci mu fexe bar jaxase mbir mi. indi sénégalais yi fi ñuy waxee seen koom-koom fi ñuy waxee seen sécurité nationale fi ñuy waxee le destin du Sénégal. ñu dugal ci ñu dugal ci waxu détail bu ñàkk fulla bu mel nii. ku nekk na nga dem régler seefu bopp waa koo nga xam ne nag da nga am ambition pour réew mi suñ la tegee yenn tuuma yi da ngay dem raxas sa der nga dellusiwaat ci sa trajectoire politique. d'accord te bu ci embarqué. Hmm. bu ci embarqué la vie des gens quatorze morts pour ça c'est trop. en appelant les gens à un mortal combat ne ñëw leen ñu xeex dee ngir loolu. non 14 mois jaru ko non nañ ci mànd parce que xamuñu leen rek. ñaar yow xamoo leen yow yaa wax léegi nañ màndu kay ci loolu. non am na lu ñu xam. 14 mois am na lu ñu xam man nga xam ko nga xam ko. xam mooy lan. moo ne génn leen suba. bésu dee la mortal combat ku deewul te war a dee suba la. waxewu ko non waxewu ko noonu de. waxul mortal combat ko noonu. waxul mortal combat. non mais génn leen firiwul ne demal nga fetal ay nit. dafa mortal combat moo ko tudd ci làmmeñam wala tudd ko nga dégg ko ma dégg. waa léegi mais même boo waxee mortal ah, ay xale waaye mais même mortal combat. ne signifie pas aller ay ndaw. Mhm. ay xale. Hmm? nga xam ne xale ak ni muy passionné ak ni mu mun a engagé woo ngay wax ak moom ci benn waxin bi c'est irresponsable. voilà loolu loolu mhm. loolu. loolu il faut que ñu nangu ne c'est une erreur. et le fait que mhm. ñu jël. une affaire privée. dugal ko au centre de nos débats c'est pas bien. en tout cas man ñu ma kenn dara waxuma kenn moo tooñ. Mhm. mais je dis une chose. du yoon ñu jël le débat du Sénégal ak de son développement ak de sa sécurité nationale teg ko de côté di régler problème mu jàmbur. d'accord alors ñu ñëw ci jërëjëf Mamaw Pape Mahawa Diouf ma fàttali ne yaa ñëw tey jii ci jano bi waaye tourisme c'est tourisme bi fu mu toll. <laughs> tourisme bi. jëlaat na une très bonne perspective mhm. alhamdulilah ren ji ci deux mille dix neuf deux mille vingt deux Sénégal en terme de trafic aérien d'abord mhm. dina dépasser sax trafic bi mu nekkoon en deux mille dix neuf avant Covid kon xam nga ñi ngi amaat benn trafic bu baax ñaareel bi ah, oui en terme euh, en terme de rentrée sortie. voilà en terme de rentrée donc mais dañ dépassé déjà fi ñu ne woon juste avant Covid di ñëw. ñaar mooy dañu lancé en deux mille vingt mm-hmm. l'initiative d'une campagne appelée Taamu Sénégal. Mm-hmm. nga xam ne dañu def tuuru Sénégal yépp ànd ci ak acteurs du secteur privé yenn identité remarquable yi. def de publicité dans les télé RTS jàppale ñu def ci une campagne destination Sénégal bu taxaw hmm. ñu fësal li nga xam ne mooy taaru xar kanamu Sénégal ci wàllu découverte mais wane aussi yenn site hôtelier yi nga xam ne mun nañ fa dem ci Petite Côte bi Sine Saloum Cap Skirring Saint-Louis loolu dafa am effet fi mu njëkk am effet mooy ci communauté nationale bu diaspora bi ñu ci bëri dañuy ñëw vacances Sénégal léegi mais dañuy sóoraale naka la ñuy demee ci gox yeeg gox goxaan yi découvrir réew mi moo tax ren sur le mois d'août jëm septembre nga xam ne moo doon période bi ñu doon naan c'est la période creuse Maodo man ak yow mii mënuñu foon am place ndax non seulement hôtel yi dañu fees mais tous les sites et les résidences yi nekk dans la zone dañu feesoon naka noonu tam dans la région de Saint-Louis li ko waral mooy sénégale yi commencé nañ ñoom aussi pour une certaine catégorie la population di consommer et ça c'est les hôteliers ak ñi nga xam ne ñooy vendre le produit de la destination ñoom seen bopp ñu koy wax deuxième bi mooy le Sénégal dafa rassuré mooy li ma la doon wax sànq ci début bi sur les questions sécuritaires sur les questions d'hygiène ak su les question de la formation du du secteur c'est-à-dire professionnels yi mën nañ seen liggéey waajal nañu leen former nañ leen su les questions d'hygiène et de et de santé et de précaution sanitaire ba nga xam ne il rassure ñi nga xam ne ñooy tour opérateur yi ñuy fëgg ci bunt barki démb rek itamit pour woon la ne développement du benn pàcc léppay doxandoo port bi ñu décongestionné permettre na croisière yi di ñëwaat on a reçu près de mille touristes yoo xam ne ñëw nañ ci croisière bi accosté ci portu Dakar masque sax xalaatuñ ko sol ndax xam nañ réputation Sénégal ci liggéey bi mu fi liggéey sur les mille je crois qu'il y a cinquante qui ont mis des le reste yëpp ils ont fait leur précaution sanitaire mais dugg nañ ci réew mi dem Saint-Louis ñi dem gore ñi dem sur la Petite Côte passer une journée au Sénégal delluwaat donc vraiment on est très optimiste ci les perspectives nga yokk ci nag les infrastructures nga xam ne politique yi nga xam ne président de la République initié na ko ci faciliter l'investissement dans le pays nga xam ne depuis quasiment quarante ans benn investissement lañ fi defoon muy sali la zone aménagée désormais sur Pointe Sarène ak Mbodiène gis ngeen lee prochaines étapes yu ñëw loolu yëpp investissement direct la Riu def na fa 500 chambre jëm ci 2000 chambres parce que day def beneen investissement bu mu tàmbalee de chambre euh, chambres supplémentaires plus Bodiène véritablement am nañ njottu ne perspective bi ñu jël grace à l'action du gouvernement ak de la vision bi nga xam ne moom la président de la République am sur le développement de ce secteur dina jëm kanam dinañ gën a am investissement gën a am emploi gën a am une économie structurante ci wàllu ci wàllu tourisme ndax ci dolli nag toujours avec la vision du président gis ngeen les grands événements yi organisés de plus en plus à Dakar parce que am nañ SICAD parce que am nañ Dakar Arena parce que am nañ stade bi parce que am nañ capacité hôtelière yu augmenté am nañu ay infrastructure tali yu baax li xale yi xamul ñi am dix-huit dix-neuf ans il faut ngeen xam ne pour jóge Dakar dem Mbour tu prenais cinq heures de temps pour le faire xamuñu ko xale yi ñooy génération Ila Touba xamuñu ne pour nga jóge waan Dakar dem Saly Portugal tu mettais cinq heure de temps grâce à l'action du président autoroute moo la yóbbu ba foofu loolu yombal na dem bi ak dikk bi yombal événement yi ñu mën a organiser ci réew mi yombal les capacités infrastructurelles. d'accord voilà donc d'accord en euh, tant que directeur du tourisme et tout ça. mais le tourisme religieux loolu ça ça ça doit nous ah, intéresser nous tous parce que loolu li tax ma laaj la ko mooy Sénégal dafa am taxawaay bu mu taxaw ci wàllu diine xaw ma nag ba xam wax ma nag tourisme culturel bi parce que man loolu mooy sama problème yéen jaay leen seen réew mi bala ngeen a jaay réew réew mi lañu mais par contre li nga wax noonu dama am solo mooy tourisme religieux euh, d'abord damay nuyu di saluer euh, doomu daara intellectuel yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey boobu mhm. Euh, ma di ci cité particulièrement ca du murid sadiq mhm. nga ne day jàpp ci liggéey bi mhm. waaye bëri na yeneen i doom yi daara yu jóge dina bàyyi ñi Tiwaawan mhm. ñii ci jàngu bi église bi ñii al Yoff Layeen ñii Canaba dañoo dajaloo ñu jàppale leen ñu bind benn téere benn xaatim xaatim benn benn document bind ci naka lañ mun a organiser tourisme religieux ci réew mi mu war a tàmbali nag ci bunt bi ci ci ci ndorteel bi par benn forum forum national sur le tourisme religieux ñu war ko organiser dès le premier trimestre de l'année à venir li ñu yéene 2023 waaw 2023 li ñuy li ñu yéene mooy président jiite ko monsieur le président de la république jox nañ ko notre ministre de tutelle euh, Mame Mbaye Niang mu di ci liggéey ànd ceeg ñun jàppale ñu ci l'idée mooy ñu toog taxawal tourisme religieux ci réew mi xool ci lan lañ soxla investissement ci lan lañ soxla former acteurs yi notamment guide touristique yi ci lan lañ soxla définir des circuits ndax exemple bi ma tàmm di joxe Maodo pour gàttal ci wax jooju mooy le besoin en tourisme religieux est réel dans le pays les sénégalais voyage dañuy tukki te li leen di tukkiloo njëkk mooy seen dine dañuy dem Tivaouane dañuy dem Ndiassane dañuy dem Gaaya dañuy dem Medina bàyyi dañuy dem Yoff Layeen dañuy dem fu ne ngir seen seen gëm Euh, suma papa am na pa un peu autour de quatre-vingts ans mhm. su bëggee noppalu week-end mhm. du ma ko yóbbu Saly munul dem foofu mhm. waaye suñu amoon ku leen yóbbu Medina Baye ñu def fa week-end wala Touba wala Touba wala Tivaouane gis bërëb yu baax yi def tour siyaare julli ajjuma julli ajjuma siyaare xalifa bi dimanche ñu ñibbisi dans de bonnes condition ko ñu ngi koy defee ci yeneen bërëb yu mel ni Fès wala feneen mais kon mu doon service bu baax pour économie réew mi doon service bu baax pour réew mi tout court doon lu baax pour diine ji tout court doon lu baax pour Sénégal. d'accord loolu nag pour ñu atteindre ko. Mhm. am na yoon bi ñuy jaar lëkkaloo nañ ci nag ak ak lu layeen ci yoof ak yeneen structure yoo xam ne ñoo nekk feneen ci këru diine yi mhm. pour que ñu di leen accompagner ñu former ay guide jox leen ay professionnels ñu définir ay circuit touristique mhm. ba xam ne ku yegg si dañ lay jël en charge de façon professionnelle am hébergement yu professionnel ci wàllu woowu ak transport bu professionnel loolu yëpp nag forum bi mhm. moo koy définir ak ñi nga xam ne ñooy des professionnels du secteur yoo xam ne c'est des ingénieurs sur le domaine dinañ mun a génne structurer ces produits ba pare génne ay curricula yoo xam ne mooy permettre ñu mun a former nit ñi ñu mun a def liggéey boobu. d'accord alors ba léegi ñu ngi ak euh, Pape Mahawa Diouf alors Pape Mahawa le troisième mandat ou la troisième la troisième candidature ak nu ko mën a tuddee euh, coow li nee na kuréel ba tey de xaw ma mais nag man am na foo xam ne fii man. Euh, dama ci teg sama tànk toujours ci loolu taxawaayu président de la république la mais ànd naa ci ak moom foofu parce que man boobu ba ci làmmiñam ci làmmiñam la mu ne dama koy def maanaam waxagul ne moom moom nii nga xam say nopp daf koy dégg nii kënëng lëng lëng lëng mu ne hey man damay def trois damay présenté waat président ma su ko wax mais nag posé nañ ay acte yoo xam ne ñu ko war ñu ngi koy posé ay velléité nangam nangam nangam te moom ci boppam nag mënta ndax nit ñi nag président de la république nag moom wax na ci New York Times nee na décision bi moom la moom la concerné mais décidé décidé na bu yàgg président de la république décidé na bu yàgg nee na woon du ko def <laughs> ah, ma kañ la wax waxaat na nag dama koy def gi laa déggagul mais moom nee na woon du ko def yow loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu day su dee jàngat gi may nga may laaj moom aw ma ci aw ma jàngat bu particulier waaye. Mhm. li ma wax sànq rek. Mhm. moom lay moom lay waxaat. Mhm. lan mooy njëriñu réew mi. njëriñu réew mi. Hmm. loolu la dox li ñuy dox ñun. Ah. mooy lan mooy njëriñu réew mi réew mi. ci ban situation la nekk. jàmm ak salaam. ndokk ba nga ko waxee. Ah, ci ah, ci ndorteelu ci ndorteelu suñu waxtaan. alhamdulilah yal na jàmm boobu sax. oui réew mi amul yéen fi nekk di wax naan eh, réew mi mais réew mi. amul benn problème amul benn jàmm fi am moom laa man kay li ma la wax ci début waxtaan bi mooy. jàmm réew mi. nit ñaa ngi dox seen i soxla ah ngi sant yàlla. waaw ñii ngi tukki ñii ngi ah, dem. waaw léegi nag. addina daam nu muy doxee. sunu réew. Mhm. war a am des projections politique situation guerre en Ukraine envahissement bi nga xam ne Russie xëy na rek envahir Ukraine euh, may fàttali dama ko tàmm di wax parce que day tax nit ñi xam ci lan lañ nekk mhm. fii may wax ak yow mhm. ba tey jii nii mhm. Donald Trump accepté wul ne ne Joe Biden moo ko gagné bàyyi ma ñëw rek dag ma naan lu mu jotee ak li ma laaj parce que man politique engagé wu ci pour ay affaire mandat loolu yëkkatiwu ma ah. li ma yëkkati mooy ni ñuy sécuriser réew mi mu doon réew boo xam ne suñu indépendance du deñ suñu développement économique ñu réussir ko et suñu projection de développement ñu téye ko libérer le peuple sénégalais et peut-être même le peuple africain loolu mooy sama combat politique man la wax man nga laaj ay affaire mandat vraiment ñi mu yitteel ci réew mi mhm. hmm, mooy ñi nga xam ne un ils sont minoritaires deux c'est des politiciens encagoulés dans la société civile. Eh, eh, maintenant yow bàyyi li ngay wax yow tamit. maintenant maintenant. Hmm. oui parce que ñiy tuddu ñiy tudd affaire mandat yëpp c'est tous des candidats potentiels. kan moo tax ñoom minorité yan yan baromètre nga ko utiliser. ñoom minorité les dernières élections yéen yéen majorité yéen. yéen a majorité mais ñun on a un million cinq cent mille voix ay doomu Sénégal yoo xam ne toll nañ ci un million ak téeméeri junniy nit yu ne ñoom ñun lañ àndal xam nga ki topp suñu ginnaaw ñaata la. Mhm. cinq cent mille. on a cinq cent mille voix de différence téeméeri junniy voix de différence entre ñun ak ñoom ki topp suñu ginnaaw laa la wax de mhm. loolu li muy firndeel leer na mooy ñii wax naan dañuy taal réew mi dañuy ils sont minoritaires euh, mais ah, mais <laughs> loolu waxuma ko de yaa ko loolu waxuma ko. waaw d'accord on verra bien man. Eh, eh, donc lu ñuy voir loolu gis nga ko ba pare. waaw mais parce que waaw boy en tout cas 2024 soreetul on verra bien. non loolu kay du soriwul leneen la mais li ñu gis ba pare nii. mooy li ma la wax d'accord yow pour yow. ñu léegi li des. mooy sénégalais yi dinañ tànn seen njiit. bien sûr et ce serait ñu war ko tànn ci ay waxu troisième mandat. si li ñu ko war a tànn mooy ki mun a libérer réew mi dindi fi ndóol. yeggali li nga xam ne mooy les politiques d'infrastructure jox ñu une politique de formation supérieure adapté aux investissements directs étrangers ba pare mot njiit doon kilifa. ko kenn rek du Sénégal yu bari man nañ loolu Sénégal yu baree ko man rek doon kilifa. mën liggéey bi am capacité ak yéen yeggali ko li nga wax dëgg la mais sénégalais yi yu bari mën nañ ko. bien dëgg la mais ñoom ñooy tànn. kenn du leen tànnal déglul. kenn werantewul kenn du leen tànnal ñoom sénégalais yi su jotee. Mhm. dinañ tànnal seen bopp. te ñun nag. mais bu ñuy tànn candidat la ñuy tànn xam mais ku nekkul ku nekkul candidat kay kenn du la tànn. ñun nag du ñu doxandeem ci réew mi. Mhm. nous appartenons à coalition bi gën a yaatu. te ndaw ñi lay gën a waxal. coalition bi gën a yaatu. bi gën a durable ci histoire du Sénégal. am les résultats économiques infrastructurels éducationnels. les plus probants de l'histoire du Sénégal ndaw yi dem leen seeti taarixu réew mi ngeen xool ko loolooy liy dëgg kenn nag mënuñoo tere ñun waaw Maodo da ngay politique rek ah, mais loolu rek a tax nga woo ma fi <laughs> politique léegi pour ma daaneel léegi politique waaw léegi pour ma daaneel oui ñun suñu candidat dinañ wax kan la te kenn duñu ci xoxatal te kenn duñu ci gësam li ñuy jiital leen rek lay doon liy tabax Sénégal ak li koy libéré xam nga xam nga lu ma la bëgg a xamal foofu. man nag sama yéen amagu leen candidat parce que président Macky Sall du candidat. sama xel mu gàtt man. oui. président Macky Sall man doy na ma candidat. waaw am nga ci droit. man doy na ma candidat. loolu man xam naa ko li ci des nag ay kii bokk ak ku dul bokk yow El Hadj doo ko wax. man du ma ko xam nga lu tax président Macky man waxuma ko di. la ko wax kët. xam nga lu président la ko wax de. ndax xam nga lu tax. Mhm. moom président sax du moom mooy wax ki bokk ak ku dul bokk. il l'a dit man ma ma ma fàttali la lu ma waxoon bokk. moom ci ma fàttali la ko. dama moom ci boppam du moom mooy wax ki bokk ak ku dul bokk. les élections daal fii niñ ñu koy defee ñëpp xam nañ ko il faut nga am entre trente cinq ans je crois et au minimum maximum soixante treize ans. Mhm. il faut nga jouir ci sa droit civique yëpp bu ñu la combattre condamné ci dara. ba pare il faut nga am nombre de parrainage boo xam ne il faut nga am ko jël sa dossier waxuñ la ne candidat nga da ngay jël sa dossier dem yóbbu ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne kii mun na doon candidat kii munul doon candidat loolu moo taxoon Youssou Ndour doonul doon président Macky Sall doon candidat loolu moo taxoon Bougane Gueye dani doonul candidat Ousmane Sonko doon candidat loolu moo taxoon et cetera et cetera am réew yoon moo koy doxal waaye du bëgg-bëgg nit ñi bañ Macky Sall wala nga ne bëgg nga Macky Sall rek doyul pour mu doon candidat wala mu bañ a doon candidat lii firndeel loolu te war a jaaxal nit ñi moo ñi nga xam ne dañuy taxaw naan su doonee candidat dëkk bi ñu taal ko loolu mooy lan xanaa nekkatuñ ci réew moo xam ne xel xanaa na rek nekkatuñ xanaa nekkatuñ ci réew moo xam ne xanaa nekkatuñ ci moo xam ne yoon moo koy doxal ak xel ak xalaat ak waxtaan boo ko Ablaye Wade bëggee président Macky Sall da ko doon xeex déedéet ah yow 2011 fii yow tamit ah, yow oh. ah, déglul yow yaa ngi mel ne ku nekkul ci réew mi yaa ma gën a xam li may wax li ngay wax weddiwu ma ko waaye da ngay déglu li ma la wax man nii. waaw maa ngi lay déglu. réew mi toll na foo xam ne ay waxu mandat ak waxu choix kuy jiite réew mi. Mhm. war na doon li indi fitna xam nga lu tax. sénégalais yi moom doo weddi li ma la wax ku leen doy ñoo lay fal. bien sûr moo tax ma a niroog ragal. mais yéen yéen a fenn coow la de. mais a a bëgg a sampaat président Macky te président Macky waxu leen dara waaw suñu yaakaaree ne suñu yaakaaree ne ñun mooy ki gën ci réew mi mooy le le qui porte la vision la plus structurante de notre sous-région fi ñu taxaw di wax qui mhm. porte les résultat yi nga xam ne sur l'Afrique ñu ngi ko porté en viseur pourquoi ñu di ko dindi ñun suñu xalaatee ne moom la ñu war a ji waaw mais bu defee douze ans kay rek ñaari mandat rek su defee loolu ba pare mhm. te ñun ñu jàpp ne te yoon may ko mais pourquoi du ko def yoon ma mayu ko ko ah yow xam nga yow Maodo dama lay wax la tax moom président Macky Sall moo ko wax man boo noppee ma fàttali la ko léegi. Maodo waaw waaw maa ngi lay déglu. yow munoo wax. ci wàllu woowu lii yoon ak lu dul yoon. mais parce que munoo ko man munuma ko sañuloo ko man sañu ma ko. ki ko sañ mu ngi fi nañ ko ko jox après dina wax li ci nekk. mais li am solo li am solo mooy. pour yow conseil man li ñu war a jiital daal du waxu man duma ma man xaw ma ci yoon dara. li ma xam mooy engagement politique pour réew mi li ma xam. Mhm. li nga xam ne li jiital. Mhm. mooy li tabax réew mi waaye dafa mel ni ñii liñ jiital du réew mi dégguma ko wax projet économique dégguma ko wax projet social dégguma ko wax ni ñuy développé koom-koomu Sénégal ba dund Sénégal gën a neex suba ni tey li ma dëgg daal mooy lenn ah moom du bokk ah, ñoom ñoom xanaa seen fit dafa dem mm-hmm. ah mbir mi du loolu mbir mi réew mi la nañ xool réew mi lu koy doxal ak li nga xam ne mooy développé koom-koomam li nga xam ne mooy tax lii objectif bi mooy libérer le peuple sénégalais libérer le Sénégal économiquement libérer le Sénégal structurellement te yoon boobu jël nañ ko jël nañ ko structure budget Sénégal rek contribution des recettes nationales ni ci duggee firndeel na ne Sénégal mu ngi conquérir sa souveraineté chaque jour. d'accord loolu dañ ci war dañ ci war a xool yoon bu koy dëgëral loolu nag le moment venu effectivement ñun sunu candidat dinañ ko wax waaye kenn mënuñu. sonal ci wàllu woowu te li ñuy jiital mooy Sénégal incha allah. léegi kañ ngeen di bàyyi jàpp taskatu xabaar yi ngeen di jàpp di bàyyi di jàpp di. bàyyi ñaata ñaata taskatu xabaar lañ jàpp yow moom a woon du ngeen ko a woon dootu leen jàppate kenn yow yow sax waxu leen président Macky xam nga yow. yow loolu dul déglu mooy. waaw ma lay wax yëpp président Macky Sall moo ko wax man mësuma wax lu mu waxul bu dee ci troisième mandat bi moo ko wax à un moment donné. ñëw na 2STV mu wax ne. waaw loolu c'est président de la République du Sénégal actuel moo ko wax. mu ne l'arithmétique l'arithmétique du président Abdoulaye Wade c'est un plus un égale un. programme moo ko waxoon 2S waxee woon. waaw mais mais loolu c'était c'était mandat bi loolu garaawul sax loolu. après mu ne ko def yëpp moo ci kenn dégg affaire troisième mandat yi ku yaa ko wax bii man may suma gagné naa ci dem sama yoon président Macky Sall moo ko wax vidéo ko teg ne yéen yéen a ko bëgg a moom moo waxoon it président Macky Sall moo ne woon sama magistère du ma ci jàpp benn taskatu xabaar te na ko. ñaar lañu jàpp. waaye même bu doon jàpp gi moo warul jàpp sax daa warut a am. waaw très bien léegi. man euh, d'abord d'abord d'abord d'abord euh, ñun en tout cas euh, li li ngeen war a saluer mooy diggante nguur gi ak journalistes yi sous le régime du président Sall parce que dañuy wax pour ndaw ñi ñi fekkewul démb Maodo sous le président Macky Sall dañ def jéego bu rëy bu rëy maison de la presse bi ñu ñu matérialiser ko mu dox mm-hmm. le code de la presse mais surtout la relation avec les médias mais Maodo régime précédent saccage de vingt quatre heures chrono journalistes yi bët bu set ñi ngi woon ci jaabante tribunal ñu di leen porter plainte pour diffamation nga jël naka noonu sous le régime précédent fii sud symbolique amende de trois cent millions ouais. qui vous a mis à genoux le régime précédent l'agression contre les journalistes les journalistes nga xam ne ils étaient en clandestin li ñu war a nangu Maodo te te suñ ko dul def dañuy gouverner sur des contre-vérités parce que li ñuy wax du nekk luy dëgg liy dëgg te journaliste réew mi yëpp xam ko Sud FM laay waxe Sud FM bii laay waxee lii président Macky Sall def pour la liberté des journalistes aucun chef d'État ne l'a fait dans le dans le pays depuis l'indépendance te nit du ko dindi Pape Alé man yow ak moom daje nañ 2S. ba tey. grand journaliste. très grand journaliste. xaw ma woon sax lu tax ñu la place du journaliste d'accord nag yow du kaso wax naa ko fu ne ah wax ko dans la presse place du journaliste ci démocratie Sénégal journaliste place am ci démocratie fi ñu toll ñun. du kaso. fi àddina bi toll sax. non non ñun Sénégal feneen beneen réew yeneen la. waaw ah, mais ñun Sénégal ñun si sunu taarix suñu modèle démocratique. Mhm. place journaliste du kaso. mais Pape Alé Maodo man ak yow yëpp xam nañ ne Pape Alé nekkatul journaliste depuis plus d'un an et demi. il est quoi il est militant. da nga gis carte de dama bàyyi ma carte. Ah. nañ nañ xa ndaw yi ñuy déglu Maodo nañ ñeme dëgg bi su ñemewul dëgg gis nga fu fi ñu bëgg a jël dëgg tegg ko teg fa lu dul dëgg forcément coow dina fa am Pape Alé ne respecte plus rien dans la doctrine journalistique rien. dans sa posture non li may wax yaa ngi gis ma ngi gis. mais mais kan moo la wax na la moom militant fenn la. yow gisoo kartam gisoo ko mu dem réunion demul meeting. loolu da nga ma bëgg a yóbbu ci polémique. mais El Hadj Maodo sa axulaay tala ak ñi professionnels yi ne ci réew yi may déglu yépp xam nañ li may wax. lorsque vous prenez parti pour un parti que vous êtes un acteur quotidien vous dérapez sur tout sur vos sources sur la sécurité nationale. ne pas de dérapage sur le principe dafa na rek dafa na rek sur les faits. da génn métier mi loolu baaxul ah en tout cas moi il a toute mon amitié te du deñ et j'ai dit dans la presse que yenewu moo ko mu fanaan vingt quatre heures kaso place am du kaso mais mi ngi ubbi des chantiers yoo xam ne ëllëg dafay am. qu'est-ce que va devenir le métier est-ce qu'on doit prendre sa notoriété journalistique son métier de journaliste le mettre au service. ne le mettre bu fekkee c'est un citoyen. il le mettre le au service d'un parti politique et de ses amis. loolu c'est inacceptable porter aussi des contre-vérités accuser le fii attaquer l'armée non non non non yow non dossier bi moom nee na kenn laaju ko ci affaire armée bon loolu lépp loolu dañ ci dikkaat waaw lorsqu'il attribue des biens hmm. au chef d'état-major te tegu ko ci dara du dëgg ñépp xam ne du dëgg on pourrait le poursuivre mais duñ ko def xamal tax loolu du moom loolu Sénégal la taarixu Sénégal moom mënul tax ñu yàq ko ba ma ñëw non non ma wax ko yàq de. yow yaa yow yaa ko wax. non ce que j'essaie de dire. si tu portes des accusations fausses sans fournir la preuve li ma wax nii loo xam la da nga ko xam ma xam ko. quand il accuse le chef d'état-major de l'armée de posséder un bien immobilier dans les faits ñu dem vérifier ko gis ne du dëgg loolu jar nañu topp ko ma xamul tax duñ ko topp est-ce que xamul tax duñ ko topp. place journaliste moo dul kaso. ah très bien loolu loolu d'accord naa ci yow. aussi que li ma la wax foofu. oui. mooy chaque liberté. Mhm. appel à de la responsabilité. d'accord Pape doit faire attention sur ça. jërëjëf Pape Mao parce que waxtu moo ñu moo ñu moo ñu xaw a xëcc. daanaka sax jàtt nañu ba pare parce que moo tax ma bàyyi la nga développé noonu bëgg ma léegi nga <laughs> nga changé sant bu baax di la gërëm mbokk yi ma fàttali ñu ngi woon tey jii ci janoo bi doon fi dalal directeur Pape Mawa nekk responsable politique wàllu communication Benno Bokk Yaakaar bi tam yaa ko yore lépp macha allah daanaka sax yow taskatu xabaar nga ah kon ñu leen sant bu baax baax di leen gërëm beneen dimanche incha allah daañu dikkaat